yëngu-yëngu amatina ci mbiru nabu Dash Nabou Dash nag nekk jigéen bu ràññaliku ci réew mi fi ñu toll nii yaakaar naa ni ku ubbi réseaux sociaux yu mu ci mënti doon rek di nga ko ci fekk muy def ay live nabu Dash nag nekk koo xam ni njàmbaar na lool ak kenn dootu ko werante ba ci bu yàggul dara gis nañ lu bees li nga xam ni mu ngi ko génnee tudde ko intiment nabu nag Fani yépp ñu gis muy acharné wu ci li nga xam rek mooy borom këram bi nga xam ne moom la mujj sëyal bu yàggul dara gannaaw ba mu génnee ci sëyam ak nga xam ne mooy njaw faal nabu jàpp borom këram di ko yekk lu mel ne xeme wante luñ ci mënti dégg sëy boobu nabu nee na ba tey ah, tasagul nabu nag di jàmmaatloog ay njoñam moo xam jëkkëram bergaan la moo xam ay rakki jëkkëram ba ci ay wujjam ki nga xam ne turu astu la yaakaar naa ne ku ko dégg ci live am boobu ba tey mu ngi koy def boole kook ay saaga yu takku takku te metti nabu teg ci njawfal faal bàyyiwut yaayam bàyyiwul kenn njoñam ñi ne ci directam sax aku wax nabu daal di lay saaga teg la ci mujj daal di koy bloqué jamono ji nag tembe ñuy wax ak yéen nabu dash waa DSC teg nañ ko loxo mu nekk division spéciale cybercriminalité ñoo ko teg loxo gannaaw génn génn yi nga xam ni def na ko ci réseaux sociaux yi boole ko ay saaga yu méttee métti jamono ji ñuy wax ak yéen naboo nga ca l'hôpital Fann ñu daal di koy xool rek ba xam ak xelam mu ngeeg moom ba tey wala fu tollu toll balaa ñu ko jébbal yoon ñu koy teg loxo. ci loolu takku der yi sax ñoo mujj réagir ndaxte gannaaw ñaari plainte yi nga xam ne jot na ko jot nabu dafa bañoon rek ne du dem wuy ji luñ ci mënti dégg nabu Dash jamono ji ñu tollu mu ngi ci loxol ay yoon dañuy daal di xool rek fu xelam mujj ak moom balaa yoon di def li nga xam ne mooy liggéeyam gannaaw saaga yu metti yi nga xam ne Nabou moo koy jël rek jëmale ko ci borom ak